noonu moment bi ti Sow duggee ci porte bële Siteu mu ngi ci porte bi ndeysaan la tarkindaa ngi noonu ndeysaan xale bi nga xamante ne bu jugee jàmm gën gépp dañuy jóg xoolal ma xarit yi xoolal ma am jàmm yi xoolal ma mbokk yi xoolal ma képp koo xamante ne dafay ànd ak Papa Siteu la tarkindaa ndeysaan taqee gi noonu barki démb ndam lu rëy la am arène nationale moom taqee ndaysaan abu ñaasee ngi noonu caatu fooraa ngi noonu ndaysaan gis nga xale baa ngi noonu bul laala ngi noonu ndaysaan xale yi fépp fu Siteu di bëre combat bi lu ne la leen di jaral waaye Siteu mu ngi bëreeg lu garaaw waaye kaay Adama day daan Papa Sow tey ku mu àndal ci àdduna du te arbitre bu sifflé daanu. xeex wala ci bëre xeex ak lépp ndax lamb ji li ci nekk bari barki maam Serap Fall li ci nekk dafa bëri dañuy dugg si stade sax nit ñi naan kii kii c'est-à-dire non du lamb lamb digg géew la dégg ko dégg nga <laughs> Baye Fall bi. naka mu waa ji fay naa la waay. waaye maa ngi am jàmm bu baax. da ngeen di ñëw pour remplir seen contrat dox seen digg Papa. dañoo jàpp ni tey la ñu war a bëre de. ndax loolu. non ñun dañoo pare. pare nañ. Baye ji ñun pare nañ. pare nga di déggoo ma de. su dee tey tey tey pare nañ te dañoo jàpp ni tey la ñu war a ñëw bëre si. loolu dina garaaw. Eh, ñun luñ moom la dañ koy ñëw jël si par force la déggoo li ma la wax de. ñu ci ñun dañoo nekk ci ay xale ba pare di liggéey doole Papa Sow mag la Dakar du safaat. da nga na bu yàgg état bi nii nii day nax ay mbokkam rek mais xam nañu ci digg géew yee eh, day bàyyi par force mu neex ko mu métti ko day bàyyi. ah dégg nga <laughs> ndaysaan ay gaa yaa ngay wax de ndaysaan dégg moom taqe. ndeysaan ndeysaan ñu ngi noonu ma ngay waaj a génn nga ne nañ ko képp ku sol blouson yaa jëm ci podium bi ku solul blouson ajul ca kaw ca bala <laughs> Ndeysaan. i la baaba la bi nag baaba la bi xam <laughs> ne état bi bu ko yoroon day gedd danaan looloo baax la ndeysaan boo ko xoolee xam ni ndeysaan deret rek a foor boo ko xoolee xam ni deret <laughs> leen moom it am na bis bu rëy maama dox ci diggante ak Garga 2 combat bi dafa yàqu ndax la Lamine dafa am blessure waaye gis nga Cheikh Bala ndeysaan sa waa ji siyaar naa la. jàmbaar delloo siyaar. ñu ngi sant bu wér kay. ngeen waajee seen diggante ak Papa waaw di waaj la comme ni ñu daan waajee rek di ñaan rek suñu borom may ñun ndam bu sedd guy. barki borom Touba Xaadimu Rasuul suñu yaakaar. ñëw ñu mel ni tey la làmb ji mystique bi bari na trop combat bi mystique bi lan la ci. non du li lu ñu digtal la rek dañ koy def rek waaw làmb ji yaakaaruñ ko foofu dañ ko yaakaar si liggéey ñàkk jariñu ñun ay Baay Faal lañ dañuy ñaanal Siteu suñu borom may kon dam bu kawe njortam barke maam Serap Fall. ana ana maama. maama moom mu kër ga waaw. moom tànk quoi mais instant yi moom lépp jàmm. ñu ci bari dañu waxoon ne blessure bi dafa jekk jekkuwut ci kombaa bi moo tax mu porte blessure est-ce que loolu mun nga ko. loolu ay waxu waxu kii la rek ay waxu falaa falaa la rek maama jàmbaar la yow it yow ku la yow rek yow rek war nga mën a xam ni maama du def loolu waaw lu war a am la rek ñaan suñu borom may ko may garga wër may maama la miin wër ba bis ba suñu boroom may ñu ndam si kaw waa parcelle 2-0. 2-0. bu muy allah Siteu day daan Papa Sow maama la miin daan garga yomb ndeysaan. parce que sëñ Touba waaw tey wax nga ni baal ma baal ma. parce que tey il faut ñu wane yar ak teggin. waaw yar ak rek. lan moo waral yar dañu war a wane yar ak teggin. signature bi jaar bëri na. di yàqu te làmbul affaire noobul la xam nga ñun ay noobul lañ ñun tey dañu war a bone au oh, bon exemple won ko yeneen mbër yi wane ni làmb amul amul ñun ñëpp ñoo far. jàmm gën chaque jour dañuy yaakaar dañ leen di taf beneen étiquette boo xamante ne alors que newul ci ñun. loolu nag dafa dëñ te amul. moo tax tey nañ si signé si jàmm yàlla def mu jeex ñu ñibbi si jàmm Papa Sow ñibbi si jàmm si kàttanu yàlla. bërëb maam seex bi borom Espagne. so combat bi soxla nañ ko trop. Ah. ko gën a bëgg fop. ma nga noonu. Siteu kañ lay génn. làmb nag lépp tegtal la. mën ngaa dugg wàcc ñu ne la xaaral waaye du ñàkk ma borox ndóolu rek dugal mikoro bi jéem a xool lu ñu waxante seen. dégg ko nee ko day wàcc. ndeysaan ñu ngi noonu. ma ngay waaj a wàcc ma nga noonu veer la sol moom Siteu am na lu muy sàqami moom Siteu ndaysaan ma nga noonu Adama gis ngeen ko ndaysaan am na saak bu mu takk ci dënd bi moom Siteu mais Adama gisuñu mu tëj blouson de moom Siteu gis ngeen ko de am na am na gàllaaj bu muy tekk ci baat bi dugal na ko ci biir yére ba ndeysaan abu ajal na ko mbaxana bi wàcc na am na sunguf bu muy dajji ndeysaan gis nga sunguf ba xam nga lan la def aadama tàndarma la def mu ngi koy lekk ndeysaan ma ngay lekk tàndarma bi am na galañ bu mu téye ci loxo ba ndeysaan gis nga Siteu am na lu muy génneewaat nday xale baa ngi noonu eh Siteu bi lu mu nar tay ndeysaan ma nga noonu Siteu dugg si na wàcc na mu ngi noonu ndeysaan ma ngay njàpp ndeysaan ndeysaan Petit Lo naka yaay jàmm ndeysaan Siteu ngi noonu gis ngeen ko veer yi ma ngay sàq mi kenn xamul sàq bi sakos bi lan moo ci ne <laughs> waa ji le xale màgg na gis nañ xale bu sérieux xale bu concentré wu ci bés bi ndaysaan ndaysaan si taa ngi noonu di dugg si si taa noonu di dugg si dugg na si ta dugg na gis naa concentration bu rëy ci si ta waxul ma nga sol ay veeram waaye nag vraiment veer yi mu sol mbokk yi xool naa xoolati waaye amul dara loo xamante ni dal na Siteu ci bët ba mu war a mën a sol ay veer xëy na damaa jàpp ni style am la wala ñu digal ko ko waaye en tout daal xale baa ngi noonu dugg si ndaysaan moom Siteu ndaysaan gis ngeen ndoxu kireen la wala ndox la bu ñuy wis xaw ma ndox lu mu doon ndaysaan ndaysaan ñu ngi noonu ci de la muy sotti bëri na looloy na lóor Siteu ngi noonu Siteu ngi noonu déglu leen Siteu ndaysaan mu ngi noonu di dox ndaysaan Siteu ngi noonu di dox dugg si na ndaysaan ma nga noonu ndaysaan gaa yaa ngi koy téye ndaysaan ndaysaan ma nga noonu tegleel nañ ko ñaari seize Siteu toog na ndeysaan mu ngi noonu